ngir dax yamb yi ci seen ruche faaw rek ñu jëfandikoo saxaar mënuñoo supporter xet gi le bile colonie ñoo ngi tàmbali waat seen liggéey nànk-nànk ñu fi jëlee lem ak léegi yàggul. ruche bi yéen la gën a soxla. fii ci forêt classée bu mbaaw apiculteur yi fi nekk lu néew lañu fiy jëlee ci lem ni ki apiculteur yi nekk ci réew mi yëpp mënuñu liggéey loo xam ne réew mi dina ci mën a wékku. ba du soxla di jéggaani lem feneen. bari na lu ñuy gis lem gi jamono ji fépp suñu marché yi wante rek lem googe nekkul fii ci réew mi lañ koy defaree lu ci ëpp ci yeneen réew yi lay daal di jóge. bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi kiy jiite apiculteurs yi nekk ci réewu senegal askan wi ba tey xamuñu njariñu abeille di yamb. vous voyez de pollinisation tous ces bari na lu ñuy wax li nga xamante ne ni moom mooy pollinisation te loole ñi koy def moom moo yamb it lu ci ëpp ci garab yi lañ koy daal di nemmeeku loolee nag bëri na jamono ji ñi nga xamante ne ni daal nañu ko comprendre moo waral ñu ñuy faral di woo si seen tool yi ngir rek ñu ñëw defaral leen ko jamono ji lu tolloog 500 ruches daanaka lañ ñuy laaj at bu jot. demandé par an dans tout ce qui est agriculture au Sénégal. apiculteurs yi li ñu tumuraan kayit nee nañu mooy. wàllu formation di tàggat ndax fi si réewu Sénégal amul kenn ko xam ne mën na taxaw ni xam-xamam dafa màcc si lu ñeel wàllu apiculture. on a juste que quelques gens qui ont... lu ñu am ci ay nit daanaka dafa néew lool ñi nga xamante ne ni seen xam-xam màcc na jëm ci wàllum vétérinaire ci wàllum apiculture wante rek ak génération bu bees bi lañ am yaakaar ngir rek daal di former ay cadres. moonte di bii la filière bokk sa ministère bi yor wàllu mbay mi nekk na banqaas boo xam ne li fi mën a tukkee si ay xëy kenn xamul nu mu toll ndax si defarum rek tenue yi ñu sol. bu ñuy dem ci yamb yi defarit jumtukaay yi ñuy jëfandikoo ba ci génn plem beeg di ko jaay lépp ay xëy la secteur bi li mu soxla du lenn lu ñu fexe ba gën ko méngale ak jamono.